bokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi dellu di leen ziar di ziar ñëpp di leen baaluwaat ak di ñaan suñu borom baal ñu euh, defal ñu jàmm euh, nangul ñu bépp jàmm ngir euh, Sénégal waaye ngir njaboot yi di ñaan jàmm ci sunu réew rawatina jàngoro yi mbas mi nga xamante ni ab diir a ngi mu daal di lëmbee àddina suñu borom teggi ko namu mu gën a gaawee bu ko defee rek li nga xamante ni mooy sëngéem geeg xat-xat yeeg yëpp taqali ko ak penc mi suñu borom mën na. Euh, lu ni mel yàlla na ko def ci euh, barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu euh, jaale waa Sénégal yëpp nag umma islam bi rawatina ak làqu ku tedd kii di xalifa Medina bàyyi sëñ Cheikh Tidiane Ibrahima Niass wuy ji sunu borom démb ci juróom-ñett. fukkeelu atam ak juróom-ñett moom ñeenteelu xalifa Medina Baye euh, li nga xamante ne mooy ñaan geeg sarax si àllarba incha allah euh, ci lu nu nangoo ci euh, kàddu ya kilifa yi tedd gu njabootu Medina Baye àllarba incha allah foofu ci diwaanu Saloum ci turu président conseil d'administration bu groupe Futur Média Youssou Ndour ci turu directeur général Birane Ndour ak tout le personnel di groupe ñu ngi jaale njabootu Baye yëpp. Euh, làqu ku tedd kookee naka noonu it euh, noonu la ñuy jaalee njabootuk euh, Mansour Kama président Mansour Kama njiital CNES di fàttali ni levée du corps bi ci kanam tuuti 10 heures la ci hôpital principal moom ràññiku woon lool ci wàllu taxawaay ci wàllu koomu réew mi rawatina ni ko naatangoom nawleem yëpp seede waaye ni ko njiitu réew mi président Sall seede moom it euh, ginnaaw euh, làqu gi euh, ak ñun ci téléphone bi daan coronavirus ak docteur Ousmane Gueye bu ministère de la santé ñu dénk ko service bi nga xamante ni moo yittewoo lépp luy éducation information pour la santé SNEIPS docteur Gueye maa ngi lay ziar di la baal wax di la wax déwénati ah Alaaji Assane maa ngi lay nuyu di la ziar di baalu ak ñëpp di baal ñëpp ak di ñaanal réew mi yal ko yal nañu yàlla may jàmm ci fi mbas mi ci ni mu teele mm. di profité ci occasion bi aussi ci touru ministre de la santé et de l'action sociale di jàll euh, famille Niassène Kaolack ci tuddu xalifu général bi mm. et noonu la ñuy aussi Mansour Kama di fi bàyyi ko aussi et di ñaan nak suñu borom euh, may ñu jàmm Mhm. tuuti. dëgg la waaye mbirum suñu borom moo demee noonu. Mhm. dëgg waaw di nangu ko mu ngoog waaw. kenn mënul xëccoo ak mhm. gën a yokk jaamu yàlla bi. am na solo eh, gën a na solo. Euh, souvent dañuy wax euh, dee ak pàttali la. Euh, voilà noonee la ñàkk également suñu suñu doyen suñu mag suñu soppe. waaw Adja Reine Marie Faye également. waaw seede yëpp nekkoon benn nit ci taxawaay gi ci métier mi. macha allah waaye it uh, yéwén gi niko ko dëkkandoo yi seddee moom it yàlla na ko yàlla xareel jëna amiin uh, docteur uh, julli nañ bu nopi c'est vrai que avant julli gi alerte yi bari woon na ci ministère bi ci kilifa yi ci kep ku yëngu ci communication ngir mbokk yi gën yok moytu gi est-ce que foog nga ni ça a été le cas est-ce que suivi amoon na ngir di fàttali nit ñi durant long week-end fête bi yëpp. waaw jërëjëf comme ni ko waxee rek euh, approche tabaski bi alerte yi bëri na parce que effectivement mooy euh, dem ak dëkk bi bare woon na. Mhm. point de vente yi amoon na ni ñi taroon nañ trop ci marché yi ak euh, gare routière yi voyage yi aussi amoon na ba tax na ñëpp yëkkate woon nañ seen kàddu. Mhm. ñëpp yëkkate woon nañ seen kàddu jëlee ko ci jiitu réew mi jëlee ko ci suñu ministre la santé et sociale ak yéen ñii. ak ñun ñun ñëpp wax mm. nañu te foog nañ nag nit ñi dëgg nañ wax ji mm-hmm. foog nañ ne ah jël nañu seen matuwaay donc loolu ba ñu ko mën évaluer xëy na fi la ñaari semaine ça fait quatorze jours si mën nañ xam ndax effectivement am na impact mm-hmm. ci ci ci wax ji ndax am na impact bu pas mm. mais la ñu mën a jàng rek ay asan avant avant loolu may semaine bi ñu génn ni mm-hmm. euh, nombre de tests yi bare woon na Eh, nombre de cas yi mu wàññeeku na par rapport ak semaine bee passée. Hmm. Eh, même nombre de décès yi quelque wàññeeku na par rapport ak semaine passée. Hmm. donc ñu xalaat ne tendance boobu bu ah, mën na mën na mën na baax mën na baax. Hmm, waaw ñu ñaan yàlla rek ñu am tendance bu mel noonu mu gën a continuer. Eh, test yi bare nombre de cas yi wàññeeku nombre de décès yi wàññeeku. donc loolu bu ñu amee tendance boobu comme semaine bi ñu génn nii rek. Ah, man nañ ah, dund yaakaar. oui maintenant ci ci ci test yi également bu ñu ko yemalee ci cas contact rek ak ak noonee euh, du ñu mën a xam euh, dayo jangoro ji ci biir penc mi ample réel bi surtout après tabaski gi foog naa ne bu a yaatal euh, nombre de personnes testées mëneesu la xam xotaayu jangoro ci biir penc mi mënees na dund ak cas communautaire wala ay asymptomatiques yu bari ca dee su ko xam. c'est ça xam nga nombre test yi. moom wax dëgg yàlla dinañ dina weesu cas contact xam nga boo xoolee léegi may keroog li ñu doon wax rek. Mhm. mooy euh, décentralisation test yi parce que tey jii boo xoolee dootul Dakar rek. ki mhm. euh, ki euh, nu mu mu ngi teste Kédougou mu ngi testé Rosso mu ngi teste defe naa ci biir semaine bi au plus tard. parce que dañoo wax juste après tabaski. Mhm. kaolak dina testé Ziguinchor dina testé. donc bo xolé lolu buñu multiplier point de prestation rek ça veut dire que ñu ngi bëgg a yokk nombre de tests donc on va ratisser large donc buñu ratisser large moy li nga wax rek du yem ci cas contact dinañ mëna a dugg dans la communauté képp koo xam ne xaw nga am symptômes yi war lañ la testé bu ñu la testé boba dinañ mëna xam ñan ñoo amé jangor bi ak ñu amul jangor bi. Mhm tant qu'on ratissera rek am nañu espoir endiguer rapidement feebar inshallah par contre euh, bu nu sukkandikoo ci information yu expert OMS te loolu it xëy na xel nangu na ko jàngoro ji euh, ku may wul mu yàgg lool Afrique waaw waaw loolu loolu c'est c'est xam nga ñun ñëpp dañ ko bañoon au départ mhm. bon amoon na prévision euh, prédiction yi yi experts yi defoon man mii bokkoon naa ci ñu génnoon mhm. ne loolu mënta am et je crois que tey jii bu Afrique continuer ni ñu defoon. depuis mm. départ. Mm-hmm. li ñuy prédire man yëpp mën naa bañ a am. bu bu bu bu ñoom li leen may dëgg rek. Mm-hmm. mooy suñu relâchement. waaw mooy suñu relâchement bu africain yi wu. africain bañ a topp digle yi. li ñu digle. ñoom li ñu prédire relâchement bi nag loolu la voilà loolu la ñoom li ñu prédire mën na am. Mm-hmm. mais ci si toutefois que engouement bu ñu amoon ak engagement bu ñu amoon. tout au hmm. début ci feebar bi. mooy ñëpp nangoo toog koo xam ni di ah, du farata moo la tax a jóg nga toog nga eh, respecté distanciation physique. nga hmm. eh, raxasu takk masque. loolu bu ko ñëpp continuer li ñuy wax ni du am man nañoo toog man man yàgg naa wax ni gëm naa ni tey jii bu Sénégal yëpp manqué woon ne tey dañoo eh, takk masque. fi léegi ñuy wax trois semaines. Mhm. dootuñu dëggati vingt cas dix cas la ñuy am wala cinq cas. te mhm. loolu circonscrire ko yomb na trop. donc je crois que tey jii pour ñu bañ jox experts yooyu dëgg bañ a jox communauté euh, scientifique bi li ñu xalaat ci africain yi ni seen si nii suñ capacité de d' intervention wala suñu capacité de résistance demeewul noonu. Mhm. bu ñu leen bañee may dëgg boobu nañu sàmmonte ak li ñu leen dig. moytu li ñu leen tere. loolu bu ñu ko defee El Hadj Assane mun nañ ci génn. comprendre naa fi ngay waxe bu leen may mhm. dëgg. bala ko ñenn ñee foog ne waxu ñoom dan dañu ko yéene. ñoom dañoo rek c'est-à-dire nit nag. Mhm. mun na la gis ngay waaxu waaxu tàng jëm ci kàmb mun la moytul boo boo boo boo boo sàgganee ba ba ba ne mbàpp ca biir nag nga xam ni rek moom alerter la woon. donc du question yéene. mais ay mhm. boromi xam-xam la ñu xam nu nu nu nu wér-gu-yaram tëddee ñuy alerter donc africains yi ñoo war a soppi toogin. effectivement tout à fait je suis tout à fait d' accord mooy li li li nga wax rek. Mhm. ñom gis nañ ni nee nañ lii bu ñu continuer nii lii moo ñu nar dal. Mhm. bu ñu ko moytoo lii moo ñu mën a dal. nañ moytu. d' autant plus que système sanitaire yi amul doole voilà voilà ndegam que ñun ay réew yu am doole. Mhm. gis nañu réew yu am doole sax tey jii sonn nañ am nañu difficulté. ñu ngi imaginer façon stratégie bu ne ak sama réew yu amul doole réew yu amul doole nag. lan moo am suñu ingéniosité moo war a am. Mhm. mooy maanaam suñu xalaat ak mhm. suñu xel. Mhm. la ñu war a jiital. aussi ak suñu bëgg réew. ne da bëgg sa réew. boo bëggee sa réew fonk sa askan. am na yu bëre yoo xam ne danga koy bañ. doo ko teg sa sa askan. surtout gis na eh, eh, njiitu réew bi kero wax na ko suñu ministre wax na ko ndaw yi tey ji ñoom ñu nekk seen digg doole ñuy daan seen doole. yor seen kilifa seen kër. seen kilifa yooyu kenn waru leen gën a bëgg kilifa yi. mais ndaw il faut aller concrètement vers eux xool ñi nga xam ne ñoo leader parmi eux euh, ci fànn bu ci mën a doon xool ñoo xam ndaw ñi déggal na rapidement qu'il y ait une mobilisation ñu dem au-delà des paroles et des discours. effectivement gis ne loolu moo tey jii boo xoolee euh, euh, stratégie bu ñu mettre en place au niveau de Dakar. Mhm. stratégie boobu la ñuy continuer au niveau des autres régions surtout les foyers chauds. mooy li ñuy wax Thiès li ñuy wax Diourbel. Mhm. mooy euh, système de volontaire bi. douze mille volontaires yi ñu jël. volontaires yi xam nga dañu ko jël. jëluñu ay volontaires yu jógee par exemple ñu jël benn volontaire bu jógee Pikine indi ko géejawaay déedéet. Mhm. volontaire géejawaay ki dëkk biir géejawaay nekk leader foofu nga xam ni euh, euh, waa géejawaay xam nañ ko. Mhm. ñu ngi koy déglu ñooñu la jël tàggat leen. may jox leen ay jumtukaay ñu dugg ci kër yi. Mhm. waxtaan ak nit ñi di waxtaan ak jeunes yi. je pense que l'eau, c'est fondamental parce que les jeunes là aujourd'hui au niveau des c'est un président ASC e yi mhm. nga ñëw ci délégué quartier bi nga ñëw ci imam bi ñëw ci euh, ASC e. parfois ça da nga gis délégué quartier bi ben, jeune bi nekk foofu moo ko ëpp mhm. donc jeune boobu ngay jël mettre ko au devant de la scène expliquer ko tàggat ko bu baax. Mm. mu waxtaan ak population bi. tey jii stratégie boobu la ñu commencé au niveau de Dakar. am na am na solo loolu bu ñu ko continuer. dina ñëw dina ñu indil euh, vraiment. jàmm ak xëy na ci wàllu programme yi parce que ndaw Sénégal tam ku ne xam nga ni rajo yi télé yi surtout télé yi daf leen na këf. est-ce que du ngeen dem faf dem jëndi programme mu télé yi nga xam ni jeunes yi ñoo ko ŋànk rek di dem moom ngeen ñoo ko fa ci seen biir jënd ci ay ay tranche temps d'antenne waxtaan ak ñoom. c'est ça jërëjëf ah. li li nga wax ne am na solo xam nga ni euh, moo tax. comme ñoom ay série ki film rek lañu bëgg. voilà dañ leen dégg bëccëg. <laughs> dañ leen dañ leen xam nga xalaat yu mel ni vraiment lu am solo la. Mm-hmm. la nga wax ni lu am solo dinañ ko tenir en compte. Mm-hmm. jéem a waxtaan ak euh, kilifa yi ñu xool nan lañ koy defee. Mm-hmm. comme nañ ko waxee nii sa c'est important. am na def ci rajo yi. Euh, dinañ ko wasaare pour li ngay wax ni jaarale ko ci télé yi. très bien tuuti eh, temps d'antenne classique yi mm-hmm. dépassé tuuti eh, publicité classique yi ñu def mais comme wax ni insérer carrément les temps d'antenne mm-hmm. yoo xam ni jeunes yi ñoo ko waxtaan ak ñoom am ma lay yeewi eh, docteur Ousmane Gueye dégg naa ci wàllu grève personnel santé dama ci bëggul sori ndax euh, maîtriser wu ma ko xaw euh, qu'est-ce qu'il en est est-ce que yow am nga ci information bu fekkee am na loolu de euh, buñ ko naree ñoom personnel santé wala ñenn ci ñoom ab grève moom ëpp naa def xanaa ngeen gaaw xool luy jàmbat gi rek ñu wut ca saafara. waaw xam nga da ngay da ngay dëgg par ci par là rek ñuy wax bon en fait mais je sais que au niveau des ressources humaines ñu ngi waxtaan ak tous les partenaires sociaux. Mmh. ñu waxtaan ak partenaires yi. Eh, parce que ni ñu ko xamee rek ñoom dañ leen di remercier parce que Covid bi tax na seen. Hmm. di négandi mais ba léegi nga xam ne Covid baa ngi fi. Hmm. Ah, Covid bi mënta ànd ak eh, ñàkk ressources humaines. Hmm. mënta ànd ak yeneen coow eh, ba tax. rek mooy dañ toog ñu waxtaan. bu ñu waxtaanee rek dina am solution. parce que loo gis lu ne. dëgg la waaw lu ne rek. waxtaan moo ci. moo war a jiitu. mais généralement euh, ñi jàmbat ñi jàmbat bu ñu demee ci rajo ak télé yi rek dañoo jotewul ci kilifa yi kon yéen tam fexe leen yombal accessibilité bi bu ko defee ndaje moom ak waxtaan wi ngay wax am. waaw waaw defe naa daal. Hmm. c' est normal rek xam nga stratégie Sénégal léeg nga dem ci seen eh, rajo yi wax c' est c' est très hmm. Hmm. Eh, ministère la santé et sociale tey jii wax dëgg yàlla. Eh, te bi ñu yor foofu cabinet bi ñu yor foofu. Mm-hmm. Mm-hmm. cabinet bu vraiment ouvert la. Euh, bu ñu soxla pour waxtaan ak euh, jëwriñ bi amul benn problème nga jaar ci man nga jaar ci directeur de ressources humaines ak ko mënt comme mënti nekk ci cabinet bi rek. boo mm-hmm. jaaree ak moom rek. ngeen am audience wax dëgg yàlla. incha waxtaan. réglé problème bi jërëjëf docteur Guèye jërëjëf. jërëjëf Ousmane Guèye euh, njiital CNEPS euh, ñu lay ñaanal bëccëgu jàmm. ba tey ak RFM professeur Daouda Ndiaye professeur ñu ngi lay euh, ziar bu baax di la wax déwénati di la baalu ak bu baax nag. El Hadj Assane maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di ziar seen mbokki auditeurs yëpp. jërëjëf di la également wax di la di baal ak di la baalu ak di baal ak également Sénégalais yëpp fu ñu mën nekk ci ci àdduna mhm. euh, muy fii waa euh, diaspora bi ñaan également ñaan ñaan ñu baal ñu yàq ñu mhm. ñaan tabaski bi yàlla euh, bokk ci li nga xam ne en tout cas dinañ ci gën a dimbali ci ci dëkk bi mhm. ba liñ ci yaakaar liñ ci gis ni yàlla defal ci saafara amin amin di également profité di jaale président Mansour Kama bi fi jógee di ko jaale waa Sénégal di ko jaale njabootam di ko ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana ak ñëpp ñu fekk amin yaa professeur euh, njiitu réew mi ci ay kàddoom euh, ci kaw euh, julli gi wax na ne ndaw ñi ñoom war nañu gën a defaraat taxawaay yi léegi comme xam nañ ni d' abord ñoom sax man je pense que réew mu ne ci xare sax bu ku yaakaarul say ndaw xaw ma ñoo yaakaar xanaa du mag ña léegi ndaw ñooñ c'est l'occasion ñu dem wutali leen comme ñoom dañoo waroon jóg spontanément ca kenn du leen woo waaye bu ñuy xaar ñu woo leen léegi du ñu am ca woo gi dañuy dem euh, jógloo leen yow ci yan levier nga gis ne ci lañ mën a jafandu pour dem euh, jógloo ces jeunes là bien évidemment am na ñu jóg ah, am na ñu jóg ñu bari ci ñoom aussi loolu buñ ko fàtte ndax souvent euh, safaan yi dafay nëbb effort yi am na jeunes yu bari yu jóg ci secteur yu bari ñu leen di jaajëfal mais ñi des ñi toog rek kon ne ataaye kon ne dem ci plage kon ne def ay crise koros ak yooyu nees mën a def ba boole leen adhésion am. jërëjëf El Hadj je pense que pour juste utiliser ben ben conseil bi nga wax léegi parce que pour wane ne euh, xel moom fepp fu mu jógee fu mu toll nii dafa am te nañ ko utiliser am na li nga wax léegi docteur Ousmane Gueye su jógee man koy nuyu également diko diko balax mm. euh man pour man amul ben idée bo xamné tay bu fekkente ne impactam am mu ne benn nit sax euh, dina ko am ñu war ko négliger mm. je pense que te il a bien reçu fi nga né euh, euh fekk ci leen ci la ñu nekk mm-hmm. effectivement euh c'est extrêmement important c'est-à-dire que boo xoolee et tu l'as bien wax nga ko ne ne ne am na ñu nga xam ne jóg nañ ci parce que loolu pourquoi c'est important tant que on reconnaît ñu benn ñaar wala ñu fukk wala groupe boo xam ne ñu ngi def lu baax mm-hmm. ci ndaw yi day tax ñooñu ñeneen ñi bu ñu ko déggee ñu ne ah kon kat buñ ci wala ñooñu sax mën nañu jouer un rôle parce que tey ñi nga xam ne dem nañ ba am ba am ci gëm-gëm mm-hmm. bañu bañu convaincre leen ci pour man euh, war buñ leen jëlee continuer liggéey ak ñoom war nañ mën a jouer un rôle déterminant c'est pourquoi encore une fois euh, peut-être que dañ koy expliquer di ko wax mais nit ñi sax xamuñu en dayoo bi ak ampleur bi mooy li ñu approche communautaire. Mhm. approche communautaire boobu y compris xam nga ñu si bëri effectivement on pense au départ euh, chef religieux rek la wala wala kii wala wala bàjjenu gox yi wala wala wala leader coutumier et cetera et cetera mais tey euh, comme comme ni ko président waxee ndaw ñi dafa am rôle bu important boo xam ne war nañ ko mën a jouer ci yëf yi donc te mhm. li nga xam ne def nañ ko li nga xam ne wax nga ko wax nga ko eh, Ousmane je pense que buñ ci jaaree non seulement buñ ci jaaree c'est important parce que tu touché à la jasam pour xale pour nga mën a communiquer ak moom il faut nga fekk ci lu mu bëgg mm-hmm. euh, tant que fekkul parce que euh, ñoom yaa xale moom am tout temps am na fu muy toll da yaakaar ne lépp moom la mm-hmm. mais boo ko ne yow boo ko ne yow la et puis utiliser ko parce que effectivement man li ma gëm mooy association sportive yi buñ leen gën a utiliser ñu ngi leen utiliser naam parce que am nañ ci bëri ci jóg ñu gën leen utiliser gën leen di déglu mettre au devant de la scène mettre au devant de la scène télé c'est extrêmement important li ko El Hadj jox leen micro yi war leen ci télé yi ne leen wax leen def leen combat bi et cetera et cetera je pense que am mën na jouer et puis autre chose également El Hadj Assane mhm. loo xam ne pour man war na mën a jouer rôle extrêmement important boo xoolee ndaw yi dafa am ñu ci bëri xam nga am na kii naan xale bi dem ngi fubali kii mu ngi ataay mais ndaw yu bëri ay étudiants lañu mhm. ndaw yu bëri ay élèves lañu aujourd'hui il y a ce qu'on appelle l'éducation pour la santé boo xoolee éducation pour la santé xeex yu bëri yu ñuy gagné ci àdduna ci xale yi lañ ko jaarale lu ma mhm. lu may wax nag loolu loolu lu existé la mhm. xale yu nekk CM2 xale yu nekk ay BFM ñooñu bu ñu ñëwoon ci ci école bi bu ñu ñëwee école bi dañuy wax ak ñoom bu ñu waxee ñoom nee na nii lañ koy moytoo nii lañ koy defee ñoom mhm. ay porteur de voix lañ doon seen seen dëkk dëgg la école bi tëjee amoon na problème mais aujourd'hui école bi tëjee na je pense que période bii mhm. mën nañ ko utiliser mhm. pour que xale yi nekk classe d'examen nga xam ne d'ailleurs en réalité moo doon les cibles yu ñu doon ciblé en matière d' approche communautaire scolaire éducation et éthique ñu jël leen dugal ci ñoom tout le temps affaire euh, information bi ñoom bu ñu demee di ko relayer di ko relayer étudiants également ñu boole leen ci à tous les niveaux surtout que euh, euh, université de France que euh, li ci des mu ubbeeku bëreetul hum. mais bu ubbeekugul également amna na étudiants yi médecine ak ñeneen yi nga xam ne ñu ngi ci xéx bi hum. ñu utiliser leen je pense approche bu ko jëlee danañ dem ba finalement avec le temps surtout que lo xam jéxaguñu jeexaguñu hum. bu ñu xaar bu fekké même résultat yi décembre lañ koy on va aller vers ça mais nañ dañ jël bobu non ya yàggaay bi nak moy problème benen bi mom ndax jangoro ji teew ben problème la mais bu naree yag ci suñu réew yi loolu moom wax dëgg yàlla moo ko àddina bu tukkee yam rek quoi. waaw parce que et c'est pourquoi et c'est pourquoi moi je pense que euh, bi njiitu réew mi naan apprendre avec avec le virus parce que au départ boo xoolee restriction yu bari. Hmm. nit ñu bëri dañoo yaakaar ne affaire bi day ñëw rek fii ak ñetti weer mu jeex. Hmm. mais loolu moo doon yenn xalaat parce que dañ ci ba jàpp basé wu ci Chine boo xam ne ñetti weer ñeenti weer la mu dem. mais bi ñu gisee am na retour ak yeneen dëkk yi ñu xam ne jàngoro bi jàngoro bu kii mais liñ ci am yaakaar ñu ci xam ne am yaakaar malheureusement am na yaakaar am na su li pose problème mhm. euh, parce que muy yàgg yàgg ci réew mhm. plus muy yàgg ce qu'on appelle une bu amee dina tax ba au moins ñu bëri dootuñu ci amati problème mais malheureusement muy feebar bi mhm. comme yeneen feebar yi euh, am na ñoo xam ne moom seen unité bu am doole parce que amul lu koy lu koy yeewa fekkee tëdd na ba pare mooy mag ñi mag ñi wala comorbidité boo xoolee li ci bëri. ñoom mhm. euh, lay dal moo tax en réalité li ci am solo bu am solo mooy euh, xool ku ci nekk nga def noo xam ne yow ki nekk ci sa biir kër te te nga xam ne mooy sa waajur. Mhm. wala koo xam ne mu ngi sa biir kër am na comorbidité ñu fay soo gérer. autre chose à la SN. à mooy ñi nga xam ne euh, ñu insister sur vers ça mooy képp ku nga xam ne am nga feebar boo xam ne yaa ngi dëkkaale ak moom. ñu fexe nga dem consultation ñu fexe ngay fexe ba mu stable tant que ngi stable. Hmm. benn problème du ko am. parce que loolu lañ ci gën a ragal par rapport à à hmm. léegi essai clinique yi moom euh, tàmbali na est-ce que pour Covid bi. bon. Euh, Covid waxoon nga laajoon nga ko euh, Ousmane Gueye peut que moom bu koy mën laaj parce que moom moo information boobu. bon j'avais vu que ne commençait na Le lac loolu laa je pense que ñoo ko des mhm. après dégg bon j'avoue que je ma ci dara. <laughs> mais parce que euh, ministère peut-être mhm. je pense que Ousmane bu ñëwee suba. parce que du moment ko il après lire journal je j'ai pas compris. Mhm. maintenant toujours est-il que. Vous faites que def nañ c'est parce que c'est que que ngi am tout tout tous les pays du monde aujourd'hui hein. parce que encore une fois. Euh, léegi tey euh, nit ñi lépp lu ñu xam. mooy mais mais nañ ci communiquer parce que léegi moom gis nga. Euh, dafa naa ni tabu amatul quoi bi mbas mi moom dafa dafa yëngal lu bari ci àddina. ñu bari sax li ñu xam ci santé boobaak léegi mosuñ ko woon xam commencé ko ci man mi donc léegi yow léegi docteur nga docteur nga. <laughs> ko boo ma dénkee malade de <laughs> mais nit ñi quand même il faut que ñu leen di ñu leen di ay njiit ñooy doon torche torche bi nga xamante ne bu ñu nekkoon ci lëndëm ñun ak mbooloo lañu rek macha allah mais il faut mu am ñun nit ca kanam mënoon na nit ñi jaar leen fii ba pare ca kenn xamul fooy jaar ñëpp it euh, j'ai cette impression ñu baal ma suma juumee que actuellement nii yëf yi daal gaa yi dañ koo teg ku ne da nga koo teggeeku euh, di di di rawale xam li gars yi di wax rawale gis nga ko mais di jéem a rawale ak def politique de l'Autriche. <laughs> waaw loolu moom. Euh, alors que alors que garaawaay bi garaawaay bi foo ko natt wees na fa. jàngoro jaa ngi faat mag ñi di faat ñi am maladie chronique di faat ndaw ñi euh, adina bi nga gis euh, zone yoo xam ne day amaat yeneen vague mais euh, fu ci mel ni Afrique du Sud gis nga bu ñu nee naa la cinq cent mille contaminés bon ñu toog rek di ko ne di feetu di tabaski di waxtaan. jërëjëf allah Hadj parce que je pense que yow yàgg nga ko défendre parce que yow yàgg je pense ñoo bokk antenne bi chaque lundi mardi. Mhm. yàgg nga expliqué ne il faut ñu wax moi hmm. je pense que mon tour am il faut qu'on communique ñu communiquons mais ça dit que euh, tant que euh, euh, on a parce qu'aujourd'hui, le fait que damay poser maanaam xaw hmm. par rapport à l'essai bon peut que on va aller vers donner la bonne information et donner l'information pour que ñëpp soit au même longueur en matière d'information parce que ne hmm. sait jamais parce que surtout que tey ñun dafa am suñu parce que tey am na fu ci OMS am na ci dire que mieux loo xam ne xam nga ko di nga gën a mën a xam nooy défendre sa réew di nga mën a xam hmm. gën a xam nooy teg sa tànk ci fenn. il faut coordination générale am ça à dire ab ab yëgoo. il faut c'est important. Hmm. sinon rek euh, je pense que parce que y a des pays yi nga xam ne commencé nañu seen essai clinique. Hmm. à partir de leur de leur de leur thérapie euh, protocole thérapeutique. et cetera et cetera. te encore une fois tey fi situation bi toll euh, pour man lépp luy information. bu ñu ko joxee rek day day baax parce que euh, nit ñi xam nañu léegi ci lu bari te te surtout que day day tax nit ñi di jàng. Mm-hmm. parce que am na ñu bari suivre nag encore une fois seen chaîne de télévision. Mm-hmm. mu ci ci tabaski bi. moo wax nga dégg. ne ba léegi parce que am na ñoo xam ne gëmuñu ko ba et cetera et cetera loolu tant li koy waral mooy en général mooy peut-être que euh, ñooñu am na lu ñu gisul ñooñu am na lu ñu déggul wala lu ñu même si parfois du prétexte mais hmm. bul may nit ñi prétexte sénégalais muy africain muy àdduna ci am c'est-à-dire que prétexte mooy may ko jox li mu soxla li hmm. moom aussi en nga laaj ci li nga bëgg li je pense que bu ñu ko defee rek dañ ko il faut il faut vraiment comme tu l'as dit il y a plus de questions tabou maintenant il y a plus d'informations tabou hmm. c'est day permettre ñu ñu et puis y a rien de amul fi amul fi luñ fi ruus. Mhm. amul fi luñ fi luñ fi luñ fi luñ fi luñ fi wax ne dañoo daanu non. dëgg tous les pays souffrent par rapport à à Covid. mais Sénégal sax daanuwul ah de façon globale bo, xoolee di taxawee. mais bien sûr macha allah macha allah c'est-à-dire souvent rek euh, saxaar yi yegg si wul ñom ñoy ëpp ciow mais saxaar yi yegg si bari na de ci fànn wu ne def nañ ci ay djégu yu am solo mais li dess rek mo des. deug la mo mhm. moo tax ma ne bien sûr parce que mo tax ma euh mom la waxoon sànq bu may commencé. li fi xew moo xam ci yeneen réew yu réew yu bëri mhm. te te tey surtout ñun chance bi ñu am en Afrique bon loolu ña yàlla gën a dimbali mhm. fi ñu ko gënoon yaakaare demul foofu mhm. nekkul foofu parce que heure bi yaakaar nañu Afrique daan ñu ngi ci situation yi doy waar mais tey yàlla ak kàttanam fexe dama fu mu toll may nañu te tey seulement ce qui rek mooy rythme bi yëf yi demee ak euh, rythme bi euh, askani Afrique yi wane ak euh, lànk topp ndigal Euh, bu dakul fa mu jëm ku ne xam nga ko faut pas se voiler la face. waaw tout à fait moo tax encore une fois continuer à communiquer. Mhm. répétons li li kat na la la répétition elle est pédagogique. oui chaque jour nañu les mesure barrières, yi. Mhm. port de masque systématique bi. am na solo lavage de raxas loxo yi. dëgg la distanciation physique bi. fi nga xam ne amuloo fa soxla bu fa dem. Mhm. parce que boo fa demee di nga ko fi indi parce que tant que mu ngi fi te. te encore une fois encore ñenn ñu naa leen bon am na feebar yoo xam ne ñu ngi rey et cetera li bu rey reyul mais benn bakkan dafa fort. Mhm. te muy bakkan boo xam ne ñu ci bëri surtout mag ñi la loolu dafay poser problème te mag réew yor réew mag ñi dañ ñoom lañ ci soxla te malheureusement jàngoro bi dafa doy waar mhm. parce que moom li mu ciblé moo doy waar dëgg la mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ñi mhm. yor réew mi ñi ko ñànk parce que benn mag ci gox moo ëpp mën na représenter plus de junniy xale ci gox. waaw ah dëgg la donc loolu tant que ñu ngi koy gis parce que moo tax bëgguma ñu koy minimiser. Mm-hmm. te puis ce ñoo xam ne yàlla may na leen loo xam ne tey bu ñu waxul ñu dégg leen. bu ñu defee mm-hmm. ñooñu dañ leen di protéger. te li leen mën a protéger mooy ñu xam ne mi ngi fi ñu continuer donc su may daaneel daal alay asal mooy li wax ci suñu jël jëlbeen rek nañu xool ni ñu ko waxee nu ñuy duggee ci réseau xale ya mm-hmm. muy muy fu mu doon muy réseaux sociaux yi. Mhm. muy ñeneen ni mais surtout en ne pas oubliant surtout période bi nga xam ne élèves yi ñu ngi jàng. l'éducation pour la santé. Mhm. ña ñàkkul ñu koy defar ah. ñàkkul na ñu koy. bien sûr waaw mais xel rek bu fekkee di nga koy def nañ ko gën a yàq dool yi. te xam ne loolu la ñëpp soxla parce que tey El Hadj Assane mhm. tey képp ku ne la bëgg nga bas bi tafi da amul. parce que ku ci nekk ci ñun am nga koo xam ne

Euh, am na solo trop kon euh, ci yii moment lañ war a gën a yokk solidarité bi ci Sénégal ci kanam tuuti euh, ñu daal di leen ubbil antenne bi rek mbokk yi ngeen daal di ñu dolli seen xalaat yéen tam ci wàllu penco gi ñeel xeex bi ak it wër ak bunt ak saafara gi boobaa léegi ci jàngoro coronavirus Sénégal. set set ci sa xolo ni set setoo yi 9h ci RFM mbokk yi euh, ñu daldi di euh, wecc konte as que euh, ñuy wéy ci programme bi 88 628 14 14 Assalamu Assalamu allo Assalamu alaykum wa rahmatullah Wa asalaam assalam. Assane ñoo ngi lay ziar Yann yalla na ziar Boubacar Jara bismillah Boubacar ñu ziar baax ñoo lay ci di la bal àq la nga bal di baalu senegal yep auditeur yi auditeur ci yi. di sunu kilifa diine yu nga xamante ne ñoo fi ko mhm. di jaarit sunu kilifa yu nga xamante ñoo sunu kilifa aada yi ñoo fi ko ak ñu nga xamante ne ji ñoo bokk ci askan bi te génn aduna ñoo ngi jall ñëpp di jaale sunu frère sunu nijaay sunu xarit babakar Fall te mu nekk fii ak di gën a santar yàlla rek di wàll alhamdulilahi rabbil alamin ndax réew soo si nekkee bokk si biir réew mi te askan bi soxal la da am yéene bu rafet ndax yéene bu rafet suñu borom daka bëgg te daka dafa ànd ak moom mm-hmm. ndax tey jii coronavirus bi ñëpp xam nañ ne ku si nekk ngi siy béy sa waar loolu moo waral te émission bi ba affaire bi commencé ba léegi yaa nga ca te alaaji asan de yéen la ko wax yàlla na nga am gudd fan ak wërgu yaram ndax da ngaa bokk si loo xamante ne tey jii askan bi réew mi ndaw ñi dañ lay saa su nekk sax suba di si nekk nag si mm. nekkin boo xamante ne mooy sa kaddu ak sa pas-pas bu nga am si biir réew mi ñoom ñu di ko doxee kon wàll woowu lu luy doxal réew la jërëjëf Boubacar jërëjëf fu may danalee nag mooy docteur Pape Amadou Ndiaye ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax si taxawaayam si askan bi parce que tey jii liggéey jël sa alal mu daanu sa dënn nga jàppale nga jàppale askan bi néew ci doole ñi pour ñu mën a tabaski loolu loolu dafa am solo même si coronavirus bi nii jàppalante bi waa ji wax na météo bi léegi wax na ko dafa am solo nañ jàppalante bi da yàlla tax alaaji atam fu may daanalee gis nga dafa am benn kàddu goo xamante dama xaa dégg si wàllu tekk wàllu tekk santé sama xol bi dafa sedd nee na man yàlla baat la ma may ma nekk ndaw ay nit di kontaan ci man di gis loolu di ko ma fekk si jël seen ma ko jox kon am xel delloo ko aat askan su mm-hmm. fekkee ne am naa xel xam nga mm-hmm. loolu dafa nekk kàddu bu rafet mm-hmm. dëgg la nañu jàppalante yàlla tax ñu ngi gërëm la président euh, groupe fédéral euh, Youssou Ndour di ko sant moom tamit ci liggéeyam bu baax a baax jërëjëf ñu ngi docteur Ndiaye encore asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah jërëjëf Boubacar jërëjëf am na solo RFM rajo Futur Média ziar bu baax sama soppe Ali Bandel ñoo

maa lay ziar bi la ndokkale ci liggéey bi ngay def. alhamdulilah di la ziar tamit ci tabaski bi. jërëjëf yàlla di la di déwénati Sénégal yëpp. nañ la nga euh, di ñaan yàlla yàlla ñaan lu nangu suñu tabaski. min yaar bi. Euh, euh, te boole ci tamit ñi fi wàcc ci fan yi. Mhm. boole ci xalifu mhm, amin yàlla ko yàlla tàbbi ci ak gën a kaw yi. amin yaar bi. moom ak ki nga xam ne tey mooy Gora ak. Mhm. ki nga xam ne tamit mooy Mansour Kama. ñoom ñëpp di ay kàngam ci dëkk bi ñoo xam ne ci semaine bi jóge nañ fi hmm. te mu nekk loo xam ne lu tiis ci ñun la. dëgg la vraiment loolu di leen ko jaalee ñëpp. jërëjëf di wax tamit ne liggéey bi ngay def lu am solo la ci sensibilisation te hmm. waxtaan bi ngay def. Hmm. wax dëgg ci la parce que li ñuy gaañ tey mooy suñu inconscience ak suñu irresponsabilité. parce que tey li ñu war a def mooy xool ñun ñëpp suñuy waajur. suñuy maam ñi fi mag toog ci suñuy kanam. ñu ah. xam ne ñun ñëpp ñu ngi leen di mettre en danger. Mhm. par notre attitude boo xam ne ñun inconsciemment parce que suñu bëgg-bëgg wala suñu inconscience wala suñu égoïsme. ñu ngi koy doxalee ci loo xam ne xam nañ ne mbas bi mu ngi def ay catastrophe tey ci Sénégal. Mhm. te bu ñu moytuwul fu mu ne ni hôpitaux yi ñuy dépassé nañu seen i doole. médecins yi def nañu seen i kàttan. Mhm. état bi def na ci mën-mënam ak lu ñu mën a critiquer état bi. joué na ci rôle bu am solo. mais am na loo xam ne ci sa conscience ci sa biir kër ci sa biir foyer ci say attitude au quotidien dëgg la da war a xam ne ne Sénégal moo la soxla pour mas bi ñu mën ko daaneel parce que mu muy ne ni moom Assane vraiment mu ñuy daan te mu ñuy daan te daan suñuy mag yi ak doole mm-hmm, mm-hmm. bu ñu déggee tey ci journée yi ñu mel ni ñu nekk que euh, sëñ Moustapha mu ngi hôpital mm. moo ko daaneel ak ñeneen ñoo xam ne tudd ñu leen ñu ngi tëdd foofu mm. war nañu xoolaat suñu bopp dëgg la dëgg la dootul ay affaire état kese moo am responsable c'est vrai que aujourd'hui le président de la république war na jël ay mesures yu bees mhm. d'urgence parce que faut que ñu tolluwaat dëgg la parce que hmm. morts. vraiment remobilisation continuer comme si de rien n'était maintenant euh, honorable euh, d'ailleurs ni du li nga ci ci bi mais discours responsable que nga mais bu la ci mais xam nga Sénégal wala ñuy ñuy waaw bañ gis nga gis lu baax sax nga wax ko ñu diw la faral waaw nga wax ñu dafa contre la ñuy vraiment euh, autour de l'essentiel wax farata di bàyyi sunna waaw loolu xam nga lan lan moo koy indi yenn saay mooy caaxaane suñu bopp ak mm. caaxaane suñu xel mm-hmm. gis nga dëkk am na fu muy toll yàlla may la ay ay ay teraanga yu dul jeex nga koy foowee mm-hmm. yàlla da lay seetaan ak sa bopp dañu war a bàyyi di xool ku nekk sa intérêt bopp mm-hmm. ñu xool suñu intere général mooy lan tey mbas bi amul murit amul tidian amul layen amul ken ku mhm. amul borom alal amul borom ñak alal amul ken ku amul chef de parti amul chef d'opposition amul société civile amul ken ku mhm. ça veut dire c'est un combat pour xamné du combat ou état du combat au président de la république Macky Sall. du combat ou Ousmane Sonko wala combat ou Idrissa Seck wala combat ou Birahim Seck. Mhm. c'est un combat de tous les sénégalais face à une situation bo xamné mu non seulement suñu mag ñi. Mhm. di dans mais di dan aussi suñu économie. bu conscience vous buñ ko amul. mais euh Hadj Hassan les 100 100 les plus de 200 000 étudiants tey. Mhm. ñu ci bi. ah oui mais nous, ñep mënañ dé nek des porteurs de main plage yi nu muy feesee ci ngoon si ñun ñëpp ñu ñibbi seen kër fekk seen maam toog fekk seen i papa toog fekk seen i yaay toog c'est des vecteurs de transport de virus mm-hmm. ñoom ñooy participer pour rey seen i waajur bu ñu tourné ñu ne état bi moo responsable alors que yow mesure yi ñu la gën a wax yu tuuti defoo ko mm-hmm. mais il faut aussi que ñu wax ne il y a une grande part de responsabilité des citoyens. Il y a une grande part de responsabilité de chacun de nous, y compris man mais si fi joggé sax ñu gëna citoyen est-ce que ça donne nañ citoyen ak Sénégal c'est ça la question. non mais amuñu hein? amuñu un amuñu rôle citoyen hum, hum, hum. ñu def ko slogan. nous nexé ñu def ko ay way. mais dañ dundul. en réalité parce que buñ ko tey am na lu bëri loo xam ne tey duñ ko def. dëgg parce que dañuy xam ne eh, effectivement. Mhm. honorable dafa mel ni rocceeku na mais jël nañu l' essentiel honorable député Cheikh Oumar Sy ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci participation bi contribution bi am na solo lool di ñu fàttali ku ne ci ñun li ñu war ci suñu réew déjà waaw boo defee le minimum taxawaay minimum citoyen ba noppi soog a yóotu leneen wala casse droit beneen 88 628 14 14 wala 33 849 16 40. asalaamaaleykum. Aliou Ba <laughs> bàyyi ko mu déglu asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. rajo Assane di la nuyu nuyu biir Futurs Médias. sëñ Médor Mamadou Médor ñu ngi lay ziar baax. ñu ngi lay ziar benn baalu àq nga baal ñu. te jaajëfal ci kaw ba ci muy président Youssou Ndour di taxawaayam bu baax a baax a baax ci tabaski jërëjëf waaw xam nga euh, man damay wax ne gis nga feebaru mbas mi. Mm-hmm. dama leen di wax rek naa leen euh, feebaru mbas dafa nekk feebar boo xam ne bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn ah dañu gën a góorgóorlu di déglu digle docteur day jëfandikoo wax dëgg yàlla masque yi. Mm-hmm. Alaaji Assane li ngay wax rek dafa am solo ku la doon déglu rek dafa naa ne lu am benn problème daal parce que yow sa kàddu yëpp njariñ la. Hmm. waaye am na ñoo xam ne li naan uh, wax rek bu doon tax a <laughs> hmm. nopp bu doon tax a dégg dañ ne mbaam kenn du ko dóor yet hmm. waaye am na si seen ñenn sénégalais yoo xam ne mbir dañ ci bëgg a dugal mbirum politique te gis nga feebar bii bëri nañu ci ñu ci faat ñu ci bëri bëri bëri moo leen faat ñi ngay dégg ñi ñëpp feebar feebaru mbas bi la dëgg la man damay wax ne nit ñi nañu dellu delloo si am boo déggee ñu ne Moustapha Sy xalifa euh, Moustapha Sy murtad si diine wala murtad si daal ma a hôpital principal feebaru mbas mi moo ko fa tëral mhm. nit ñi ñoom tamit taalib yi war nañu gën a xoolaat comme feebar kat bàyyiwul bàyyiwul sax suñu sëriñ war nañu gën a xoolaat mhm. ah mhm. di jëfandikoo digle docteur ah, te jëfandikoo masque yi feebar feebar mi ngi ci àdduna bi yëpp la ñu ngi lëmbe ci àdduna bi yëpp la ñu moytu rek kenn kenn toog sa biir kër xamuloo ci lan la nañu jël jëfandikoo masque yi dañu jël masque yi yi moom moo moo moo gën a wóor lépp loo xam sa kaaraange la dañ jël te ah. rawat na loo xam day wàlle am na solo ah. ba tax na daal man état bi lu mu war a def yëpp def na ko. Mhm. muy président de la République ministre de la santé personnel bi ñu war a def yëpp def nañ ko. population bi ñoom ñoo des. Mhm. journaliste yi comme mel ni yow wax ngeen ñuy dégg leeral ngeen yëpp. Mhm. Ah, jaajo jërëjëf jërëjëf Medor 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Assane. kooku. El Hadj Xaasim Mbaye Mbacke moom. ah mu ngi ziar Mbaye. ñoo ngi lay ziar di leen dokkee la baal la baal mi. Alaaji Assane ñoo ngi ndokk honorable député boobu génn léegi li nga ko wax rek moo am solo xam nga Alaaji Assane wax jën amul jëf jën moo am mm-hmm. ba mu tàmbalee ba léegi maa ngi di siyaare ajarot soodo jëng ci dama ne ko mm-hmm. su doon bu doon mën a am làmmiñam di wax bu nee ko koo ragal Alaaji Assane lay wax mm-hmm. parce que macha allah lii na ci waroon lépp def na ko ci mais li honorable wax nit ñi dañ war a bàyyi xel citoyen la wala opposition la wala kii la taxul feebar bi jóge fi feebar bi ñun ñoo war a xeex ak moom daan ko mu jeex tey ji boo xoolee sous région bi dëkk yi ñu wër nii fi ne même Gambie démb rek président ba dafa génn wax ne dana yokkaat Iran licence bi trois mois mhm. couvre-feu bi seize heures la koy tàmbali Mauritanie def nañ ko xam nga ñun ay doomu aadama dañoo nekk ak suñu nawle nekk ak suñu jur dëkk mhm. comme ni ko ni ni ko ni ko honorable waxee mhm. xale yi ñooy dem ci boo génn nii dem ci place démb man bi ma jugee Mbàkke laa dëkk mais li jugee Touba ñëw di football si Mbàkke wallaay la si alaay sa yaram day daw Mm-hmm. yow dëkk boo xam ne bañ nañ ko ba borom dëkk bi ñu koy sañ def nañ fawul fëluwul liggéey fi am ak jaamu yàlla jàng bët bu sit nga gis lu ma téeméeri kaar yanu ay xale ba mu fay del ñëw di football bu mu paree demaat ca dëkk ba nekk ci café yi nekk ci bon xam nga nit ñi mm-hmm. ñun ñoo bëri ay caaxaan nit ñi nañ wax suñu bopp dëgg tey def dëgg dara li ñu ci waxoon fii maire dafa communiqué ne li ko tàmbalee dictature ba nangam sangam bu fa kenn defi xar mais lañ doon wax day mel nit ñi dañuy ñaawal seen bopp mais bala ngay wax seet da ngay wér yàlla tax gis nga bi tabaski jub see li ci nit ñi doon wax nit ñi li li may doon wax it il faut ñu bàyyi ci xel yenn journaliste yi nañ ñu dimbale parce que ay porteur de voix lan nañ bàyyi comédie bi bàyyi caaxa di bàyyi opposition bi di métti yi parce que lii xew du caagi ni feebaru kenn la adduna lépp lëmbee jërëjëf di jaare alaaji Malick ca foora di ko ndokkeel jërëjëf jërëjëf Mbaye <laughs> Aliou Ba xam naa ne yow xar mi baawagu la ko parce que Aliou blanc yi bari na bouton yi xàmmeetu ko <laughs> lendemain tabaski ak sur lendemain yëpp dañ la ko waroon may feet yow asalaamualeykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. kooku kan waaw yow la. man la Moussa Bari nekk fii ci Waoundé. Ah, bari ñu ngi ziar bu baax. c'est dans la la région de Matam dans le département de Kanel. ci département Kanel Waoundé. waaw waaw waaw commune ñu jërëjëf waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi lay déglu bu baax a baax fii wax dëgg fa yàlla di rafetlu aussi émission bi. alhamdulilah. wax dëgg fa yàlla kontaan nañ trop wax dëgg fa yàlla ci émission bi. jërëjëf bari. bëggoon a joxe suñu participation ci suñu xalaat ci mbir mi daal. yaa kay bisimilah. waaw xeex bi daal ni ma ko gisee. Mm-hmm. ndax man daal e, autorité ci seen bopp ñoo xaw a démissionné. Mm-hmm. gis nga sa doom wala sa ki nga yëlif. li nga bëgg mu def ko bu fekkee ne nangu ma koo def. Ah. da ngay jàmmaloog moom. Mm-hmm. comme yaa ko yëlif ndax bàyyi li ko dafa métti ndax ñii daal dañoo bàyyi li ko bu métti métti surtout ci côté masque yi hmm. masque yi daal nit dañ ko respecté te maa gis ne autorité seen bopp muy les les les hommes de tenue surtout les policiers les gendarmes hmm. dañoo bàyyi nit ñi ak seen sagoom ëpp dëgg la alors que waruñu leen bàyyi ak seen sago ndax nit ñi mm. am na ci ñu am na ci ñu am conscience ñu xam feebar bi am na ñoo xam ne gëmuñ sax feebar ba bés ni tey jii ni amul am na ñu ko gëmul dëgg la mais mais li waa ji waxoon rek ku ko gëmul daal ñu ñu fexe ba yow doo mën a génn ci penc mi euh, waaw mu jeex tàkk rek boo bëggee doxi say soxla par force uh-huh. nga takk masque wala alkaati yi def ba yow boo takkul masque nga bañ a bokkati ci penc mi am diir waaw loolu mooy dëgg dañ leen ko dañ leen ko war a exiger parce que am na ñoo xam ne rek am na ñoo xam ne xamuñu masla xamuñu raara dañ leen ko il faut nga forcer leen ko dëgg la ndax da ngay wante ñoom ñoy wone la affaire bi amut ay wax la ay jënt la ay ci mais yow mëno fexe fexe ba wax leen li xam moy dëgg légui nak autorité ñoo war jël seen responsabilité muy police muy gendarmerie muy lé waaw waaw ñu forcé ku nit ñi forcé leen ko parce que malade bi mu ngi def ay ravage ci Sénégal ak ci aduna bi mu ngi def ravage yu bon dëgg la mais malheureusement jusqu'à présent nit ñi gëmaguñ ko léegi dama doon ñaan ñi nga xam dal na leen ñi nga xam dal na leen dal na leen bañu bëre waaw ñom ñu jël seen responsabilité génn ni man diw sangam feebar bi dëgg la dal na ma boobu yàlla defal na ma wér naa waaye nañ ko moytu bu ko defee nit ñi gën ko mais ba léegi da nga naan ñoo la wax ma kum dal wax ma kum dal jox ma exemple parfois yow fi nga nekk di xeex mm. doo am sax ay ay argument yoo mën a xeex ndax mm. peut-être que doo mën yow mënoo dalu la mënoo wax ne man dal na ma wala loolu mm. mais ñun daloon dañ génnaat ne leen ne mi dëgg la. Mhm. dal nañ parce que six mille ak poussière yu wér. nañ génn wax ak waa ne leen tabi bi dëgg la. am na solo te mu ngi dal nit ñi mu ngi mu ngi dëgg la am na solo jërëjëf loolu daal laa bëggoon wax El Hadj Assane maa ngi déglu tey laa mos a war ci RFM nag. jërëjëf jërëjëf mais toujours maa ngi lay déglu nag. mais jaaraama ak <laughs> waa yëpp vraiment sëñ Bari di la gërëm ziar soxna Yaay Kan Diallo ci Thiès RFM sëñ Cheikh Anta Diop maa jigéen gay équipe bu Thiès bi yépp kon macha allah Aliou ñu continuer asalaamualeykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah sëñ bi. waaw ala fa ñu ngi lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. xaadim ci sala tuba Fakala. ah sëñ xaadim bisimilah. ñu lay ziar baax a baax. yàlla na yàlla nangu ziar. alhamdulilah naka coono yi. ñu ngi nii rek di góorgóorlu. ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf Cissé. yoote ba yooyu ak dig léegi yëpp rek. jërëjëf. Hmm, xam naa ne ñun dañ see bindoon ay ay way ci jamono yee génn da ngeen. ci mbas ni manam da ci bindon waaw ab lu melni kan nah, ni taalif. ab taalif waaw. bëgg cee jàll rek bu lépp mënut a jàll tamit ñu jàll ci tuuti rek. waaw xanaa ñu jukki ci aslëf rek xam nga waaw dama wax naa bisimilah ma jóg man bindati way wax ci li xew ci réew mi muy njàmbat yi tey. bekkoor bi ak jafe-jafe ak ñàkk gu rëy ak ànd lor jaaxle gu rëy ci bu bi bu nu sàggana waral mbas mi la tey lii di mbugal mu rëy ci ñu ko weddi tey sadib natub jullit bu gëm bu amee may nde man de man maa ngi dégg ci musiba yu rëy li wér ba wóor de man tere na maa sëy ma sànni saa baaraam joxoñ ñi jiite tey ne xam ni fa mu jóge woon waxaan la woowu la ay sunu ñoñan ko wan ñu bañ ñu ñëw fi tey ba noppi bàyyi ñeneen indil ñu ko fi tey ba mu tàmbalee ñoom lan wane woon télé gu rëy di nu digal raxasu ak jàngal ñu xëy te yemu leen fa di ngeen a tëj sunu te ñun duñ dëndul fonctionnaire te kenn du duñu fay dakkal programme diine yi ñu daan fay dëgg-dëgg lii lim làmboo moo gën a rëy ñu fataloo nit ñi boole dóor bay bëgg a te sàcc yaa ngi sàcc di daj boutique yu rëy ngeen dajale xaalis mu jur coow lu rëy liggéey fi yu bari wax ne lii ger la bu rëy bu fekkoon ni terewu leen fi jaamu gi tey ger bi danaa ci séentu ndam lu rëy rëy saa boo xëyee jox sa nopp dégg buy gën a bari di njàqareeg tiis wu rëy teema bañ a wax li fi taxaw ci ay liggéey jaaykat yi ak chauffeur yi daal ñun ñëpp a jooy li ma métti man ba mitti mooy am na ah, ba métti mooy am na ñu bëggul mu gaaw a jeex ah kay yéen organe de presse yi digle yi daa doy wax leen ñu xibaar yu wér te wóor yu mën a doy li tax ba wu leen li ngeen di def tam dooni mooy foofu ak musique yàq ji koog lii moo gën a rëy ma waxaat ak ñi jiite réew mi tey ñu xamal ñi ni yabal Tuubaa ñu di fi xëy nan yokk war ma ji ci kilifa yi si dëkkewaay Hmm. ndax dëkk bee rangoon ngëneel yëpp tey aadim moo yàlla dàqal nag yëpp xëy maa ngi jégglu jërëjëf donte jël nañ suñu wàll ñun presse bi danañ ci baxel nguur gi jël na wàllam <laughs> waaye jàpp naa ci ñaar danga gis ne waroon na euh, wéyal jàmm suñu boroom gi ba bañoon cee dakkal dara waaye càggante gii nu jural natt bi xëy na buñ ca gënee góorgóorlu dina baax ñu koy gërëm sëñ Xaadim momit Khalatam euh, xalaatam ci tolluwaay gi di mi ci réew mi waaye ci àddina 88 628 14 14 asalaamaaleykum. wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar ah Maane euh, man naa ci ñaari analyse ma def. Mhm. li ma bi passé. Mhm. ne pour affaire prévenir ay renseigner éduquer passé nañ ko ci mm-hmm. supprimer lañ toll mm-hmm. gis nga bu ñu jéem a nax suñu bopp mm-hmm. réprimer lañu toll tant que réprimer bi dem defuñu ko li ñuy ut nii dara du ci sotti dara du ci sotti amul amul benn solution solution bi des mooy réprimer mais pour ñu réprimer il faut que état bi euh, prévoir lii ku ko def yan article ñoo lay ñoo lay condamné ñi naan gendarme yi buñ seetaan ni ñi policiers yi buñ seet mais boo ko jàppee hmm. boo koy defere ki loo koy defere hmm. looy bind looy wax looy viser ban loi ngay viser ban article yi nañ wote une loi hmm. bu ko defee sëriñ si aussi jàppale nguur gi duñ leen jàppale ci lii ni dañ leen jàppale jàppale bu fees wane ne lii ànd nañ ci ku ko def nañ la teg ci yoon am nañ ci part de responsabilité bu ñu ko defee te wane ko mu fës waat naa ne au moins cinquante pour cent dina ci wàññeeku mais bu fekkee sëriñ si aussi ñuy wax parce que ñuy wax ay taalib rek lañ. Mhm. Sénégal quatre vingt dix neuf pour cent musulman lañ ay taalib rek kay wax. Mhm. sëriñ si yëpp bu ñu booloo wax ko de façon très claire wane ne lii ñuy def teguñu ko fenn ak yaradiku la nguur gi na sévir. Mhm. laa ji asan au moins soixante dix pour cent dina wàññeeku.

asalaamaaleykum. allo Guèye Bassi. kooku. kii sa jarbaat la mbay laay Cambérène. Eh, ziar nañ bu baax laay Moutar. waaw di la ziar bu baax El Hadj Assane. jërëjëf. di ziar ahlu bay di seet naa limaam yëpp ci julli giñ ñu jugee. jërëjëf. El Hadj mhm. communication bu kenn wax ne amul am na. Mhm. première ci yow laay jëkkee. Mhm. yàgg naa la ko wax jayuma la. def nga loo mën. wax nga loo mën mais on parle de civisme. Mhm. maam Cheikh wax na ko ne jullit ñi dañu bëri wax. Mhm. ñun jullit ñi dañu bëri wax. parce que lii nii ministre bi def na lu mu mën. Mhm. nelawul yendalatul président def na lu mu mën. 2024 lay xew yàlla rek moo xam nekkul ci loxo Alaaji Alaaji Assane nekkul ci loxo Youssou Ndour nekkul ci loxo président Macky Sall. xoola perte yi ñu am nii ci weer bi ku la waxoon tey du ñu fekkee tabaski doo ko gëm ku si mel ni Babacar Touré mës ta ko jamee mës ta yëf fitna. kon euh, communication am na ñun ñoo dëgër bopp commencé ko par man ñun ñoo dëgër bopp c'est nous. Hmm. mais nag président Macky Sall ku lab si géej nga ana président. Hmm. ku sa daal dag nga ne am président. Hmm. président mu ne def leen lii ñu duñ si jaar. lu si waay mën. Ah ah couvre-feu bi fi mu nekk lu nekk dégg nga ñu ñaawalaatee nekk si tali yi di ñaawal président di ñaawal policier yi. ay nit di leen filmer si vidéo yi nekk seen caméra mel ni ñuy ñaawalaatee. la ku ne amul rek daf la dalul feebar bi am na dafay exister. Ah nañ ko wax bu la dalulee nag di nga am mais ku mu dal. Hmm. di nga xam ne am na nañ bàyyi sabotage yi. lii lu sérieux la Europe lu jommal Europe jommal États-Unis hmm. jommal France. Hmm. Sénégal bu ndaw bi waxi noppi. kon nañ def lu ñu mën gën a moytu. nit ñaa ngi dem par benn benn président mi ngi def lu mu mën. am na solo ñu fi nekk chaque jour di door di rayante bon chaque jour ñu ñoo war a manque de civisme bi daal moo ñu sonal Alaaji Asan di lay sant di lay gërëm. jërëjëf balaa mon opinion ñoo ko njël. lay maxtaar jërëjëf jërëjëf yokk moytu gi. vraiment yàqu ci dara te it jafewul di raxasu di masque wu di sorianto aslëf gën ca gàtt benn mètre euh, di ko fàttalante sunu biir ci xam ni mu ngi fii ci mu ngi yóbbu ay kilifa di yóbbu citoyen simple di yóbbu ko ne euh, di nasaxal koom gi gën a jaaxal boroom kër yi wax dëgg yàlla lii lépp nag euh, moom dafa ànd ak moom mbas mi dafa sew dafa sew asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. mi ngi lay ziar sëñ bi. seen delloo jaar sëñ Assane. man Abou Thioy laa tudd. noo tudd. Abou Thioy. Abou Thioy ñu ngi lay jaar mhm, euh, maa ngi dëkk Liberté 5. toujours. Mhm. communication bi ngi def jàll na bu baax a baax a baax a baax. alhamdulilah. Ah, damay dégg nag ñuy wax ne nit ñi dañ dëgër bopp dañ dëgër bopp dañ dëgër. Mhm. d'accord mais am na loo xam ne aussi état bi daf ko war a def. li mu war a def mooy. Euh, Aladji Assane. masque yi cher nañ benn masque 300 cent. Hmm. et puis ñu bàyyi ay étranger taxaw ci mbedd bi di ko jaay. Hmm. à nos risques et périls. Euh, tablette comprimé aspirine. Hmm. buy def bi 125 vingt cinq lay jàpp pharmacie. oui pourquoi état bi mënul subventionner masque yi ñu di ko jaay ci pharmacie te ñu bàyyi ko di ko jaay ci mbedd bi à partir de ce moment ku takkul masque mën nañ la defal affaire.

parce que yow mun nga toog sa kër sax sa jarbaal ñëw ne la tonton masque laa bëgg nga jël dix masque mayu mu nekk cinq cent franc mm-hmm. dëgg la benn masque trois cent dix masque trois mille mm. waxtaan wax dëgg ci la nañ waxante dëgg dëgg la yomb leen toog waxante dëgg mm-hmm. médecin yi li ñu war a def def nañ ko yow communication bi nga war a jàll jàll nga ko mm. mais li nga xam ne mooy dëgg mooy masque yi mm-hmm. oh là là dagg na abu abu Coy ñu ngi jéggalu Liberté cinq wax nga dëgg masque yi euh, waxtaane woon nañ ko fii euh, ci fan yële ci ginnaaw il faut nguur gi gën cee góor góorgóorlu gën a jàppale askan yi nguur gi ak ñi yàlla may ndax am nañu euh, am kàttan gi am nañu ca nekk doon ko def boobaak léegi également ñu leen di encourager mais luñ ca def doyul ndax mbir mi xamuñu kañ la ñuy tàggoo ak moom ca sol masque gi woon guddee ak bëccëg la kon daal ñu gën a góor góorgóorlu ci yombal gi ndax loxo yi jotul ginnaaw gi ci ñu bari Euh, ñu jël euh, dernier auditeur peut-être Aliou euh, asalaamaaleykum. allo. asalaamualeykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. ñu ngi leen di fay. bisimilah. waaw Assane. waaw. ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. jërëjëf yàlla na yàlla na ko ziar. allah ci Samba Diaw. ah ñu ngi ziar bu baax. na na ngeen def. alhamdulilah. waaw ñu ngi leen di eh, baal wax ci tabaski gi di leen baal wax bu baax baal na nga di jaar eh, ñu nekk ci réew mi ak bitim réew yëpp ak auditeurs yi. jërëjëf. waaw a ñu ciy wax rek mooy la ñu waxoon rek la ñuy waxaat. Mm-hmm. ndax daan corona moom wax dëgg yéen yéen gàcce nga xam li ngeen waroon wax en tant que responsable wax ngeen ko ndax. Mm-hmm. bu dee daan corona yéen a engagé seen i moyens yéen a def seen lépp. c'est la bu dee ci bu dee assuré une ci max ko mat. jërëjëf Diaw. Euh, beneen bi ma ci constaté fini ñu toll. Mhm. moi euh, état de war naa mhm. état de li muy jóge il faut que mu jël de de nouvelles mesures. tu ma ne rek gaa ñi bàyyi ma bàyyi déedéet c' c'est pas une responsabilité. na wax que euh, les chefs religieux. Mhm. na wax des forces vives de la nation c'est-à-dire parti politique yi yëpp bu campagne électorale tey jii ñëpp ngi ci terrain Mm-hmm. nañ ñu dimbali nekk ci terrain bi ñoom les responsables waxuma euh, kat euh, maanaam militants yi nekk di wëndeelu déedéet. Mm-hmm. les responsables génn ñoom ñëpp ñëpp ñu ngi dégg ci politique ñëpp waroon na génn tey. Mm-hmm. sur sur le terrain. non chef religieux la ñoom ñëpp war na noo jëlaat beneen discours bu bees. beneen discours bu bees. waaw Touba boo fa demee dañuy wax ne. corona amu fi corona amu fi ba léegi loolu dañ def ci ci ci kii bu ñu gisee kay la la xalifa général des mourides def masque. Hmm. Cheikh Bass def masque. Hmm. Serigne si def masque. mais ñoom war na war na xam ne. Hmm. kon corona baa ngi ci Touba. dëgg la dëgg la ñoom ñëpp ñu jël seen responsabilité. ah yow Serigne bi nga gëm ma ngi ma ngi def masque. yow bala ngaa dem ci moom war ngaa def masque. te waroo ko jox loxo. mooy teggin ndax sëñ bi waree na ko sàmm te dem naa fa. Hmm. Euh, ci ci ba yàggul rek ci fan yi gis naa gis naa ñu koy jox loxo te waruñu ko jox loxo. Hmm, hmm, waruñu ko jox loxo. dëgg la war nañ ko sàmm ñoom bu ñu sàmmul seen bopp nañ sàmm sëñ bi. muy beneen muy Touba l'axe Touba newoon naa ne depuis longtemps nañ ci jël mesure. l'axe euh, Thiès Dakar fi la affaire bi nekk. di saluer au passage le gouverneur de Tamba le gouverneur de Tamba man bu ma nekkoon ci état bi danaa ko danaa ko yokkali Mm-hmm. parce que bi affaire yi amee dafa jël maanaam mesure yëpp yëpp gendarmerie wër ko ñëpp wër ko mu dem ci village yi dem fépp tëj ko. Mm-hmm. en toute responsabilité. man def naa ci wax naa ko wax naa ko le ministre defal naa ko message wax ko ko ne ko il est il est à citer. Mm-hmm. comme exemple. les droits de l'homme laa ci laay mujj. Euh, nanu génn. ndax bu dee tey jii. Euh, policier ba gendarme di laal na benn xale ci masque yi wax ba gaañoo ak jéem a naa ko sanction ñoom seen sensibiliser seen marché bi lu lu mu leen di jëriñ ñoom tamit. Hum. les droits de l'homme. Hum, hum, nañ génn na ñepp kenn deug la na kenn sama morom kenn na ñëpp génn suñu asat. dafa laaj waaw à travers les mosquées à travers les églises les les églises. partout les lieux de rassemblement nañ ci commencé di gëna a continuer parce que affaire bi. mu ñu ñuy ëpp loxo. deug la deug la. mu ngi ëpp loxo te biñ ci waroon a def lépp état bi day dem ba nga xam ne mënatu la dem. Mm. bu boobaa tamit ku feebar ci kër ngay nekk rek. ñuy continuer moom maa la ko wax de bu ñu demee ba hôpital ko moom du mar de waa jaw ñu ngi lay gërëm. loolu rek laa doon wax ma ngi leen ñu ngi leen di sant gërëm a baax. ñu lay gërëmati di gërëm ñëpp ñu nu àndaloon ci daan coronavirus ak RFM Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi réalisateur Hadj Ndiogou Diène di leen fàttali ci kanam tuuti 10 heures incha allah desk religieux bu RFM dina jël kàddu gi ak Hadj Ndiaga Seck ak Oustaz Moustapha Ndiaye ngir rek euh, mbokki euh, diwaanu Saloum kër Medina Baye waaye it euh, umma islam bi yëpp bi ñàkk démb ak làquk sëñ Cheikh Tidiane Ibrahima Niass di xalifa bu tedd bu Medina Baye jërë ngeen jëf ñu yendu ak jàmm